wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónni ñu ko whatsapp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañu fi nekkal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 15 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor a tax. point de la rédaction mbokki internet yi seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di am kontante ak mbégte et comme ni ñu koy defee saa su nekk di teew fii rek di waxtaanee di xam fàccee actualité yi am ci réew mi rawatina les faits divers Moustapha mbay laa ci àndal Moustapha maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di nuyu képp koo xamante ne baaxoo nga di ànd ak ñun. ci suñu jotaay bi ñu amal di le point de la rédaction bés bu yàlla sàkk. ayca mi ngi noonu tey nag ñu daal di koy euh, doore ak euh, wàllum politique xalifa euh, Sall mi nga xamante ni bu ñu sukkandikoo ci journal bi di Les Échos moom mi ngi commencé di amal ay audience di recevoir ay mouvement ay groupement féminin yoo xam ne si nii ñi ngay ñëw ca moom mu leen di dalal ñu jàpp ne nag mi ngi am loo xam ne si nii mi ngi koy wàcc ci wàllum politique ginnaaw bu ñu ko bu ñu nemmikoon waxtaan goo xam ne si nii amal na ko depuis mu daal di jugee foofu ca kaso bu rëbës Moustapha euh, Les ko moom mu génn foofu xam naa dañuy taxawandi foofu laataa ñuy ñëw ci beneen point bi li nga xamante ni moom lañu fas yéene waxtaanee alors euh, wax naa ko xalifa Sall dafa mel ne mi ngi euh, am loo xam ne si nii mi ngi koy waat ci suuf. Euh, ci wàllum politique ginnaaw bi ñu ko nemmi mu toogoon benn toogani boo xam ne si nii daal euh, bëri woon na ak tekkaaral trop. waaw du doon loo xamante ne dañu naan gulet la parce que bu ñu seet bu ñu seetloo ci ginnaaw tuuti bu mu génnee gannaaw bi ñu ko bàyyee euh, fan yële ñu weesu doon na dem doon nañu wax ne am na ñu mu doon recevoir amoon ay audience yu mu doon recevoir tey tamit gisaat nañ boo xamante ne am na ay audience yoo xam ne ñu bëri dina leen dalal. Euh, dalee ko ci ñoo xamante ne ay xalifiste lañ ñoo xam ne ay mouvement jigéen ñi lañ ñu koy jàppale arabisant yeeg ñoo ñëpp dina leen dalal mi mbir moo xamante ne ñu bëri nag ñu ngi njort lan moo nekk ci ginnaaw wala lan lay wàcc moom mi nga xamante ne moo bokkoon ci ñi jiite ci ñu bokk ci kilifa parti socialiste yi mm-hmm. donc mii loo xamante ne rek pour man euh, yéex na ko def sax la ñuy wax parce que boo koo xam ne bi mu génnee ki léegi daanaka def na at bu tekk mm-hmm. parce que septembre 2019 lañ fin septembre 2019 lañ ko bàyyi woon euh, actuellement ñi ngi ci octobre def na at ak lu teg daanaka activité defu ko dara amu ci donc mhm. buñ ci génnee période bi nga xam ne mbas mi jaar na ci diggante bi dafa nekkoon ci benn euh, tekk tekkaaral boo xamante ne pour man nekkuloon avantage am mhm. d'accord am na loo xamante ne benn passé carcéral boo xamante ne am na peut-être lu mu ralentir ci élan bi mu amoon ak euh, fi mu tegoon bëtam mais li ko li ko doon gën a mën a dimbali rek pour man mooy bu mu génnee kaso rek mu gën a jàjjuwaat gën a taxaw gën a jëmmal boppam gën a xeex bu baax a baax. Euh, ay euh, mouvement laa ko wax euh, wax naa ko léegi moom muy ay mouvement yoo xam ne si nii mouvement de jeunesse la ak ay groupement féminin wax nañ ci ay étudiants tamit ay élèves ak ay arabisants donc ñoom ñëpp ma ngi leen di wax tey jii ci këram ba nekk fële ci Sacré Cœur nga xamante ni moom mooy quartier général am alors mën nañ jàpp ne am na lu muy am na lu muy wàcc bu ñu xamee ni que li nga xamante ni moom moo des ci élection locale yi ñu ngi koy waajal parce que dañ ko parce que Dakar tamit bu ñu xamee ne Dakar euh, c'est un vrai combat. non xam nga dafay dund ak benn absence boo xamante ne pour man du yoon. Sénégal tey jii fi ñu toll nii mënoo lim opposant génne ci Khalifa Sall mënoo lim ay opposant génne fi Idrissa Seck mënoo lim ay opposant génne ci Ousmane Sonko. mën nañ ne ñett ñooñu pratiquement ñooñu ñi nga xamante ne ñoo ci ñoo ci gën a fes dañu dem ba tey jii boo xoolee pratiquement moom xalifa euh, Sall ak Idrissa Seck kenn gisatu leen. Ousmane Sonko rek moo nekk ci opposition bi di di di def rôle opposant am ni mu ca waree donc dafay baax pour man tekk tekkaaral ba nga xam moom la nga xamee Idriss Seck moom mu bañ mu bañ a ranger ci côté boobu tamit d'accord silence c'est une forme de communication mm-hmm. ci la bokk parfois dafay am solo mais moom bu mu fàtte tamit dafa am benn période dafa am xam ne daf ko daf daf koo dund am am fu mu jaar am loo xamante ne ah, moom moom lay jànkonteel jamono ji mooy ndax dinañ ko mën a bàyyi mu retrouver mu retrouver ay droit am ndax dina mën a bokk ci am na yu bëri yoo xamante ne mën na ko gàkkal ci ci ci ci avenir politique am mais loolu lépp rek pour man li ko war daal mooy jamono ji mu gën a imposer politiquement parce que tekk tekkaaral boobu yaakaar mu am ci lu ciy gagné parce que fekkee da nga nekkoon prison nit ñi namm la nga génn nit ñi de xaar nga génn pour relancer activité nga génn nekk ci benn tekk tekkaaral dafay doon benn suite boo xamante ne du la arrangé te du arrangé li nga bëgg a def parce que tey ji gis na ñoom ne dañoo génn ci PDS ñu créé seen parti mais Khalifa Sall actuellement mënoon am na parti mënoo ne am na mouvement mënoo ne am na lii. Hmm, amul benn structure bu dëgër. taxaw taxaw Sénégal la am mooy mooy mooy coalition boo xam ne tax hmm. taxaw Dakar la woon. Hmm. après taxaw Sénégal mi benn coalition boo xamante ne ay sympathisants ak ay am xamante ñoo ko topp ñoo nekk ci ginnaaw. mais pour man koo xamante ne dama am ambition koo xam ne dafa bëgg a jiite réew mi dafa am fu mu bëgg dem. dafay jot heure bi d'ores et déjà mu dal di structuré boppam bu dee parti lay doon wala moo xam lu muy doon wala mouvement la doon lu muy doon mu teg ko. daal di commencé surtout ay représentant ci ci gox goxaan xool nu muy def dugg ci biir dëkk bi lijjanti ko liggéey ko travail liggéey ko bu baax a baax ba bu ñuy dem 2024 ñëpp dinañ xam Khalifa Sall fan la bëgg jëm ak fan la teg ay bëtam mm-hmm. mais fi ñu toll nii su fekkente ne dafa continuer ci logique bi mu nekk nii pour moom du doon loo xam ne koy arrangé du doon loo xam dafay fay mm-hmm. parce que nga parti dafay am genre lu ñuy dafay am mais su fekkee ne da nga nekk benn leader politique boo xamante ne da nga absent euh, say militants dañuy dem sax ba dañuy découragé parce que mm-hmm. bëri na ñoo xamante ne Khalifa Sall bi a mu nekkee ci kaso bi mm-hmm. ak ni a ñëw sax bi mu nekkee kaso la gënoon a euh, gënoon a yëngutu mm-hmm. euh, ak militants yi nga xam ne si ñi nga woon ci biti côté Grand Yoff chaque jour ñu nga dégg ñu nekk ci rajo bi ak télé bi di mobiliser wu pour ñu génn ki nga xamante ni moom mooy seen leader boobu di Khalifa Sall mais dafa mel dafa génne rek ñu jël combat bi yëpp euh, di koy teg ci suuf xaw ma nag lan moo xew mais jamono ji daal lu ñu ci mënti wax mooy que ni mi ngi mi ngi remobiliser waat euh, ses troupes euh, xam naa ni juste pour am am fu mu jëm am na yoo xam ne si ne échéance yu bëri yoo xam ne si mi suñu kanam lu si mel ne lii di locales yi. mu ngi élection locales yi tamit. présidentielle législative yi également. ak lii di présidentielle yu 2024 jamono ji lañ ko war a mën a préparer. jamono ji lañ ko war a mën a préparer loolu moo tax nag pour man lii muy def nii lu am solo la mais bu mu ko yemale ci ay visite kese eh, j' espère que comme moom koo xamante la moom kenn du ko jàngal politique wax dëgg yàlla koo xamante ne mi nga dooree ca école ba ca ca mouvement pionnier sax la ñuy wax ci kaw di màggee ci parti si bokk na ci rare personnes yi nga xam ne tey jii paysage euh, ci champ politique bi ñu nekk nii ñoo ci am formation politique bu wér. ak expérience bi nga xam ne expérience politique bokk na ci rare personne yu ko fi am ak poste de responsabilité yoom daanaka lépp occupé nga ko fi. Mm-hmm. parce que moom moo fi njëkk nekk koo xamante ne moom mooy maire Dakar boo xam ne da nga ci ci ci ci. faro ci ak nguur gi moom moo ko fi def ci jamono jamonoy mouvement ci jamonoy Abdoulaye Wade ñu gis dëkkin bi ni mu demee waaye ci jamonoy Macky Sall la gis nañ ne après tamit fa mu mujjee ñu dem ba destituer ko ba tëj ko fi kaso yooyu yëpp am ci donc pour pour vous dire que rek am na benn expérience boo xam ne am na benn passé boo xam ne am na benn vécu boo xamante ne pour man doy na ci argument mhm. moo Sénégalais yi bëri na ñoo xamante ne tamit bëgg nañ ko bari na ñoo xam ne wóolu nañ ko léegi nag moom moo war a moom xoolaat loolu nu mu koy liggéey nu mu koy transformer mm-hmm. parce que am na benn jamono comme ni nga ko waxee léegi bi mu nekkee kaso euh, ñëpp dañ ñu bëri dañ doon wax nañ bàyyi xalifa deful dara nañ ko kii ñëpp xam nañ ne combat bi li ci ginnaaw lépp lépp lépp leen la woon rek mooy Khalifa Sall bu mu bokk ci élection présidentielle mm-hmm. te gis nañ bi élection yi jàllee même année bi ci lañ ko bàyyi mu génn mm-hmm. loolu dafay doon ay mbir moom nit ñi dañoo jàppoon ne nit dañoo jàpp ne Khalifa Sall bi dañ koo toon tëj ko léegi loolu nag nekk ci benn tekkaaral tekk tekkaaral boo xamante ne dafay mel ni joxoo benn continuité ñooñu nga xam ne dañu doon xeex pour nga génn ñu jàppale la li nga bëgg ñu jox la ko wala ñu teg ko sa loxo dafa da nga génn rek daal di def benn recule boo xamante ne mën nañu diir bu yàgg la parce que def na at diir bu yàgg la te boobu warul woon donc tey ji bu commencé dafay audience pour man dafa war dem plus loin que si si audience yooyu noonu mm, mm, mm. jéem a xool naka lay def ba ci opposition bi ba ci opposition bi leader yi nga xamante ne tamit tamit tey ji yàlla def na ay leader lañ ñoo xam ne signifiant nañ mais seen doole politiquement parlant des na. Mhm. mu xool nu muy liggéeyee ak ñoom ak nu muy dajaloo ak ñoom nu muy mën a demee ak ñoom def benn mbootaay wala lënkaloo boo xam ne dina ko indi njëriñ. Mhm. mais xam naa du doon loo xam ne dafa yomb mhm. boobu ñooñu ba tey ñu ngi wéy di ànd léegi moom ñan lay àndal soit ñoo xamante ne dafay bénéficier ci ñi nga xamante ne ñoo mere ci parti socialiste kese wala ci société civile la ñu bokk donc beneen équation mooy posé si kanam te loolu dama yaakaar ne li ko waral bokk na ci bi mu génnee rek teelu ci woon taxaw sëgg ci mm. bu parce que bu ci teeloon sëgg amaana dina am ñoo xamante ne dina din teel a copte ñu liggéey ak ñoom xool lu ñuy def ba dem mais su ko bàyyee noonu ba élé ba 2024 des benn at wala ñaari at mu bëgg cee taxaw mm-hmm. bëgg ci liggéey amaana mën na am problème mais suñ suñ suñ suñ jàppee nag mën na ñëw yàlla leeral lépp ci kanamam. foofu nga koy waxee tudd nga euh, recul donc est-ce que recul boobu nga xam ne si def na ko bi mu génnee kaso nekkul benn recul stratégique ci politique nga xam ne si ni euh, dafay toogaat xool bu baax a baax ban yoon la war a jël parce que euh, génn kaso rek commencé waat di tañax tañax te xam nga donc mm-hmm. je pense que tamit loolu mën na nekk benn stratégie. waaw dëgg la comme ni ma la ko waxee léegi rek moom Mhm. parce que pour man sama gis-gis recul d'accord mën nañ ko nangu benn période bi parce que même boo gisee am na ñoo xam ne man bi muy bi muy doog bi muy doog a génn di def euh, première euh, conférence de presse man maa nga fa woon ñu bëri presse ñu bëri ñu ngi fa woon. Mhm. doon ko couvrir mais ñu bëri am bi ñu génnee foofu rek lañu commencé am benn benn benn parce que ñu ngi doon xaar Khalifa Sall ñëw. xam nga gën a gën a gën a engagé wu. même ni discours bi mu tenir dafa doon benn xalifa boo xamante ne. dafa dafa relâchement quoi. waaw non pas pas pas sax mais doole bi ñu ko doon xaare ak fugg bi ñu ko doon xaare pour mu arranger ful yi. Hmm. wane ne xeex bi dañ koy door dañuy avancer dañuy kii dafa ñëw jéggal ñëpp jéggal comme kenn comme comme benn kilifa diine boo xam ne dañ koo baal. ku ñu exilé woon mu ñëw wala benn kilifa diine boo xam ne dañ koo tëjoon génnee ko mi wax ay taalibeem mhm. donc on n'a pas senti le discours politique bi ñu doon xaar ci moom donc discours bi ñu xaar un discours plus d'un homme religieux boo xam ne dafa doon wax na ñuy jaar-jaar yi ni sama destin lañ ko tegoon lii nii la demee mais gisuñu benn engagement bu mu jël gisuñu benn position bu mu jël mu mel ni dafa am benn daal benn genre xaw ma nu ma ko mën a tuddee mais benn benn benn moytu benn moytu waaw benn benn moytu boo xam ko doon def mm. peut-être du sóor ci kanam parce que comme tamit ay mbiram leeragul bu baax a baax. donc euh, loolu la mais mais ñi loolu nag bi mu ko defee man yaakaaroon naa ne après bu ñu demee ba si kanam tuuti dina am ay coppite yu ci am mais dañoo gis ne daanaka ci logique boobu. la continué te foofu occasion la woon pour mu mënoon a. occasion la woon nit ñi ci moom. mu génnaat gën a am doole comme kaso lu ñu koy wax rek kaso moom boo fa duggee surtout politique moom boo mhm. génnee rek eh, dafay mel ne sa doole dafay yokk. Ah, mais mais gis nañ ko Idrissa Seck affaire chantier Thiès ñëpp dañu mhm. daw jàpp kii ko parce que Sénégal tamit sénégalais. yërmande yërmande waaw mhm. yërmande bi bari boo xasee dugg kaso rek eh, daanaka dañ lay ñu bëri dañ lay bàyyi xel. Eh, ci ci ci réew mi te moom foofu la waroon a profité pour mën a am li mu bëggoon a am. foofu la waroon profité mais tamit xam nga ñu bëri dañuy wax ne c'est un pacifiste boo gisee ay yu weex tal lay yëre bu weex bi lay sol teg ci mm. koppati bu weex bi vraiment doon benn pacifiste boo xamante ne pour man parfois dafay doon loo xamante ne euh, am na avantage ci dëkk bi parce que boo xoolee Macky ni mu jotee réew bi bokk na ci mais lu nekk dafa am contexte am mm-hmm. Macky Sall ni mu jotee réew bokk na ci yar boobu ñu ko ñu ko xamee woon kenn kenn dégg ko mu wax lu ñaaw ànd ak dal xasul kenn xasul kenn coow li bëri na li ñuy di xeex li li li ñuy di yàq musiba Abdoulaye Wade déggoo mu mu dugg ci domaine boobu mm. waaw kon xam nga tey jii loolu nga xam ne moom la nu comportement boobu Macky la amoon ko mu mel nii dañ ko gis xalifa euh, Sall am à peu près démarche boobu noonu mais te tey jii Mahfouz dañ koy jéem a contextualiser ñu xam ne jamono yi du benn parce que jamono boobu ak léegi euh, lu bëri xew na ci et puis euh, benn activisme bi dafa développé wu développé boo xamante ne foog acteurs politiques yi di ci bàyyi xel parce dafa am loo xam ne dafa xew fii mi 23 juin jàll na fi depuis lors mu am ay mouvement yoo xam ne dañuy pousser comme des champignons gauche droite léegi société civile dafa am benn taxawaay boo xam ne am na ko et dañoo dañoo dañoo exigeante envers ñi nga xamante ne ay politique lañ fii ci Sénégal parce que gis tey tey ji xew-xew day am wala benn événement ñu ne lan moo tax homme politique bi génnul wax parce que dañuy bëgg activisme bi saa bu waxee sax homme politique bi génn wax or ku nekk dafa am rôle booy def ku nekk da nga am benn signification ci biir société bi loolu nag mooy waral tey jii boo nekkee benn homme politique ba pare bëgg bëgg bëgg benn taxawaay boo xamante da tekk tekkaaral souvent boo moytu train bi dafa la fay bàyyi parce société bi parce askan wi dañuy bëgg koo xam ne dafa leen di waxal mhm. dafa leen di waxal yow nag boo ñëwee nekk sa ginnaaw mais duñ la gis mën na indi problème ci ci sa démarche. mais recul boobu nga tudd léegi mën na nekk benn recul euh, stratégique parce que ku xam euh, kii di Khalifa Sall ci politique ak jaar-jaar yi mu am euh, xam ne du ci cuune donc bu nee tekk rek am na lu tax. waaw ni nga ko waxee noonu la demee sax Khalifa Sall politique amul luñ ko siy jàngal parce que koo xamante ne la mën nañ ne fi mu jaar yëpp ci politique kenn dootu ko nattable kenn waxanteetu ko donc dafay dafay doon loo xam ne tamit dinañ ko gisee noonu mais tamit dinañ am ci jàngat buñ ci mën a def. bu xamante ne buñ ko méngalee ak jamono dinañ ci gisee ni kat ah war na ko mën a jooyanti war na ko mën a jooyanti parce que pour man jamono ji fi mu toll Sénégalu 2020 du Sénégalu 2017 du Sénégalu 2012 parce que jamono day dox et puis dafa am ay changement ak ay rythme boo xam ne moom lay doxee leader politique bu nangul avancé ak jamono jooju dafay tardé mi ngi mel ni tey ji bu ñu demee ci affaire réseaux sociaux yi tey ji boo jëlee réseaux sociaux yi nga jàpp ne mbir la boo xamante ne activistes yi ñoo ko da ngay juum da war a exister de façon virtuelle war a exister tamit de façon boo xam ne concrète la donc il faut ñu siy bàyyi xel ni nga dundee ci réseaux sociaux yi noonu nga war a dundee ñii di la gis noonu nga war a defee déclaration noonu nga war a àndee actualité bi pour boo bëggee euh, am taxawaay bu am solo ci politique bi donc ma ngay dajale li nga xamante ni moom mooy ay troubam foofu ci Sacré Cœur euh, mu nekk quartier général am euh, muy Khalifa Sall ak coowal parti Serigne Mbaye Thiam bi nga xam ne si nii amal na ko ci fan yi eh, di wax ci eh, njiital parti socialiste ak intérim bi nga xamante ni kii di Aminata Mbengue Ndiaye eh, moom moo koy moom mooy gérer bi lii di intérim bi donc mu nekk coow loo xam ni mi ngi ci parti boobu nga xamante ni fa la Sall jógee yaakaar nga ni coow loolu kii di Khalifa Sall rek moom moo ko mën a lijjanti. duñ ne moom rek moo ko mën a lijjanti mais bokk na ci saafara yi nga xam ne man jàpp naa ci mooy bi ci gën a wér. jàpp naa ne coow la parti socialiste fi ñu toll bu ñu mànkowee ànd. mooy gën doon jàmm te loolu fi muy jaaree mooy retrouvailles famille socialiste te retrouvailles famille socialiste mënuñu koo def te jiitaluñu kii di xalifa Sall parce que tey ji ñi fa nekk tey ji nañ xool yan profil ñoo xam ne ñoo fa jiitu mënoo cee génne Aminata Mbengue Ndiaye euh, boo boo ci tegee Abdoulaye Wilane Serigne bay caam mm-hmm. ñoom ñëpp actuellement benn Wilane rek moo ci nekk maire fële Kaffrine bi ñu nekk bu weesoo Abdoulaye Wilane ñeneen ñi fa nekk ñum daanaka seen base amatuñ doole mm-hmm. malgré ay ministre lañ am nañ ay responsabilités yëpp mais boo booy xool ci base dafay des mm-hmm. te politique ku war a jiite parti war nga mën a am kat sa ginnaaw boo boo gëstoo war nañ fa gis ay nit mais waruñoo gëstu kenn di fa nekk pourquoi ñu war a jiital Khalifa Sall bokk na ci base bi mu am fii ci Ndakaaru mais bokk na ci tamit background am na koo xam ne pour man jaar-jaaram ci biir parti bi Aminata Mbengue ko Serigne Mbaye Thiam donc koo xamante ne base am parti bi la màggee dund na lu nekk ci parti bi dund na ak président bu nekk ci parti bi kooku tey ji bu ñu ko joxee parti bi dafay doon koo xam ne jox nañ ko këram te pour man dina doon moment boo xamante ni au moins dina permettre parti mu dundaat beneen air bu bees parce que mii Aminata Mbengue Ndiaye mii Serigne Mbaye Thiam mii Abdoulaye Wilane keneen ku mu doonoon tamit ci parti bi boo taxawee ëllëg nga samp sa ndënd dañ lay inscrire ci li ñuy wax continuité parce que yaa nekkoon ak président Macky Sall te actuellement euh, bu ñuy wax changement rupture la bëgg wala changement d'orientation mais duñ bëgg dugaat si continuité balaa ko balaa caaj ko ñu ne nañ ko jox Macky Sall wala ñu jox ko kenn ko ànd koo xam ne moo mhm. a dundaat pour mu am yeneen beneen euh, air bu bees bi parti bi pourquoi mu doon pourquoi day tax képp koo xam ne meroon nga képp ko xam ne frustré woon nga képp koo xam ne amoon nga loolu naqari su boobaa euh, di nga dellusiwaat te dellusiwaat boobu avantage ak intérêt parti bi rek lay doon. waaye xam naa ni du yomb de Moustapha ndax euh, ñoom la nekkoon ba kii di Khalifa Sall ak ñoom Barthélemy Diaz ñoom ñëpp génn ñoom ña ba léegi muy coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ni euh, la nekk muy nekk ñoom ñi nekk ci pouvoir bi donc xam naa ni moom nekkul lu nekkul lu yomb. non du yomb du yomb parce que ñee déjà choisir choisir nañ seen camp ba pare. ñu ngi si benn camp bi ñële choisir nañ camp opposition xam nga bu bëggee boole opposition ak pouvoir dafay xaw compliqué kële nekk du dara du ko jaral ci àddina mu koy bàyyi kon lii war mooy ñu organiser ay congrès bañu a exclure kenn woote ñëpp bañ a pipé deey li ñu war a def ñu def ko normalement coow bañ a def loolu ko defee mm. su fekkente ne Khalifa Sall moo majoritaire moo gagné congrès boobu noonu ñu jox ko parti bi mm. ñi nga xamante ne dañoo choisir des ak Macky Sall ñu des ak Macky Sall bu leen Macky Sall dàqee ñëw rejoindre leen wala ñu jël seen ay responsabilité dem fekk ji leen ci opposition bi te xam naa du doon lu yomb mm. mais bu fekkente ne seen intérêt yëpp dañ koo su boobaa dinañ def seen kéemtalaay kattan ba booloo dem wuy ji parti bi que bàyyi parti APR doon parti woon dafa nar a phagocyté parti socialiste. Mm-hmm. te te loolu li musiba bi muy jur mooy parti socialiste mooy doon parti yoon dafay parce que actuellement ay parti socialiste lañ am mais bu ñu moytu dina am benn elo parti socialiste boo xam ne dina leen dugg ci si APR te bu fa duggee daf koy phagocyté lekk ko carrément mu jeex. comme ni nga ko waxee xam naa ni du yomb foofu la ñuy daal di yëkkatee jotaay bi ndax euh, xam naa ni euh, problème boobu moom du yomb lijjanti donc Moustapha dama lay bàyyi daal ma lay bàyyi rek nga daal di joxe sa kàddu bu mujj ñu daal di yëkkati jotaay bi. waaw sama kàddu gu mudd rek balaa ma ñaax politicien rek ñi nga xam ne sax ñoo nekk ci parti socialiste. ñu def seen kéntalaay kàttan ba rek euh, ndono li nga xamante ne Ousmane euh, Ousmane Tanor bàyyi na ko fi mu doore ko ci Abdou Diouf ba ci Léopold Sédar Senghor mu bañ a naax saay te ma leen di woo tamit rek si retrouvailles des familles socialistes de la famille grande famille socialiste parce que pour man intérêt foofu la tegu de foofu la tegu parce que ñi fa des nii kese am na ñeneen ñoo xam ne liggéeyal nañ parti bi loo xam ne tey jii mérité wuñu ci banc su ko defee amaana parti mën na am chance mu amaat du sang nouveau mën a dékkuwaat dem euh, loolu yaakaar naa euh, bu ñu ko defee dina gën ci ñun du ma la jox kàddu nga te jaajëfaluma Diaw Fara Diaw Fara mi ci technique bi. ayca <laughs> kon euh, mi ngi noonu noonu lañ koy daal di yëkkatee jotaay bi di la jaajëfal yow di jaajëfal également ki nga xamante ni moom mooy Libas ak Diaw Fara ñoom ñoo nekk ci technique bi Eva nekk ci réalisation bi di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan ci ci bitim réew di sax fa suñu ay programme fii